lu tax nga jël ko Siteu bu Ngor dafa nekk si yoon te xale la moom mu bëgg man ma may ko sens loolu kese la mais si kàttanu yàlla bu nu simee ko dina xam ne maa ko ëpp doole maa ko mën billaay walaay. yow yaay wax de sarak waxul yow yaay wax. dama ne la sunu pare di ma dékkaat micro. ah dinaa ko duma dinaa ko daan billaay walaay maa la ko wax. di nga duma Siteu bu ngoon di nga ko daan. di ma dékkaat micro bu lamb jeexee ngir yàlla fekkaat ma si di géew bi dékk ma micro. jërëjëf. loolu. Alioune Seye ñu duma ko bu bëree ñu daan. mën xeex de. loolu du dara ñun ñu ko gën a nekk. yow ngay lan yow. ak ma suul sama ndey day daanu tey. tey. barke laa ilaaha illallaah day daanu. tey booy si dem ngoog. lu garaaw la day këpp day daanu day këpp dafay daan yow Siteu mbër ga la yaay yóbbukaay li nañ ko kii dafa mel ne dañ koo waajal de ah waajal nañ ko de sotte ñu koy wax Papa Dia ah. mën ñoo loolu. dégg nga loolu. ngay la Alioune Seye rek la ñuy topp boo jaatee rek jubalal. Ah. fan laabe moo ñëwee. mais dañuy daw rek. parce que El Hadj Fall leen daan dañuy daw rek. dañuy daw rek jubalal. topp ñu kenn xoolal waale wéy ñu Youssou Ndour wéy ñu yëmbal fan laabe ko wéy. Alioune Seye noonu Alioune Seye ngi noonu mais eh, moom. yow yaay magam nee naa la après. nan bàyyi ba si kanam rek. jëlee ma ki nekk si ginnaaw Siteu bu Ngor. Abu Ndiassé ngi noonu. moo ko ëmb. dégg nga lu ñuy wax. Siteu tey malay la. saaga yàkkamtee xeex la. déggoo gëstu gëstu. mais yéen booy garaaw gi garaaw garaaw koñ dara xaaral ba si kanam. diggante Cité bu Ngor Alioune Seye numéro bari woon na Alioune Seye moo ngi dox ci kawam arbitre bi na am nañu woote ne nañ arbitre sifflé na kilifa yi la ñu woo gannaaw koo woo oh. gannaaw gaa yaa ngi jël seen téléphone di woote waa kër Alioune Seye ñoo ngi jël seeni téléphone di woote yaakaar naa ne kilifa yi la ñuy woo Siteu bu Ngor moo ñu wan kanam Alioune Seye moo ñu wan ginnaaw boo xoolee Alioune Seye moo ko ëpp jiitu ko ci làmb lool. waaye Siteu bu Ngor xale la boo xamante ni bi mu duggee ci làmb yàggul waaye wane na boppam Alioune Seye nag amoon na ay dog-dog ci làmb yu bëree bëri waaye diggante moom ak Siteu bu Ngor tey lay leer. Alioune Seye Siteu bu Ngor ñaari xale yaa ngi leewtoo mbokk yi. lewtoo bi soree na Siteu bu Ngor tànk yi ñoom ñaar teg nañ seen bëtu oom si seen conc Aline Seye Siteu bu Ngor Aline Seye Siteu bu Ngor Aline xaaj na géew bi Alioune Seye xaaj na géew bi ASC Debour Ngor fa mu taxaw buuse wu fa bu làmb ji gaawee rek mu neex yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ñu ngi waajal màggalu Serigne Bamba waaye di yaa ngi waaj Kazu Rajab waaye ñu ngi ñaanal sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg ak kilifa yi lii mooy réew mi. ñaanal suma xarit laay bu deev sunu borom guddal fanam Siteu bu Ngor arbitre bi woo leen ci digg géew bi arbitre bi woote na avertissement amul ñoom ñaar bàyyi leen ñu bare dafa teel dimbali leen rek ay xale lañu li nekk seen ginnaaw dafa bari te làmb ji dañ see fere boo defee nii rek du baax sooraaleel mbooloo mi ngeen di wàññi yenn kii Siteu moo ngi mépp mel na kuy ñëw ci kawam di xool bunt alin Sey yëmbal a ngi ci ginnaawam route de Boune Malika benn baraak fas Mbaaw are Fatou Lawbe ñu ngi ci ginnaawam waaye Siteu bu Ngor Ngor a ngi ci ginnaawam fukki penc ak ñaar yi ñoo ngi ci ginnaawam Traoré ñoo ngi ci ginnaawam ñuy ay xale ñoo ngi déplacé wu waaye ba léegi congo amagul madame Senghor yàlla yàlla guddal safan fan social bi ngay def ci réew mi doy na waar néew di doole yi ngay dimbali doy na waar di leen wax fële sa Sicap Mbao dafa am njaboot joo xama ci ni dañoo am feebaru cancer waaye ay kuyo bu jàpp ci woo leen Karbala boo leen ko wooye lu ci waay mën dina ko ci def Alioune Seye Alioune Seye na sira boxoo daan na ko waxoon nañu ko daan na ko Alioune ko coow li bari na daan na ko Alioune Seye ngi aalu benn congu la waa Alioune Seye sa diggante ak waa Yëmbal Alioune Seye maa ngi sant maa ngi sant ñëpp waaw maa ngi sant ñëpp ñëpp maa ngi lay sant Alioune Seye ñëwal ci li nga bëree ñëwal ci li nga bëree dimbali ma Alioune Seye ñëwal ci li nga bëree papa boo jiinee mënul bëree barki démb am am am am am tefet te ñoo préparé donc combat bi yëpp. trois heures. Papa Boy Djiné borom xol bu nice la moom laa tuddee victoire bi. Papa Boy Djiné barke sëñ Babacar Si. combat bi ñoo ko préparé ndoo. billaay wallaay nga doon bëri combat bi mu bari coow trop. ñëpp ne la xale bi mooy tukko. waaw moo waxul dëgg mais du ma booy ñii. billahi du ma ñii tolof moo ko boole sa waay ak gàllankoor billahi du ma foo jëm foo jëm garga de ak ambulance waaw soxla naa ko nga de gis ngeen sama naatoo ko lañu garga soxla naa ko eh loolu jaar yo yoon man yaa quatorze victoire la am quatorze victoire la am fenn kii barke Serigne Saliou kii day nekk roi des arènes kii xale la xale bu ndaw la eh kii xale bu ndaw la kii xale la kii yéen a ko eh. dara si bul fontoo nit ñi demal nga entraîné nga ñëw daan na ñëpp xale la xale gisoo kii kii di xale kii la xale la waaye ah tàccu ko tàccu ko mu jeex mu ñibbi eh. kii di xale. Ndeysaan euh, Bousse Bousse wax na wax ju doy waar wax na wax ju doy kii xale la amul lu muy pet si xale bu ndaw la ba mu ñëwee ci làmb yàggul waaye am na lu mu wane ci làmb xale la amul lu muy perte nañu ko encouragé ñaanal ko nañ ko encouragé ñaanal ko parce que bokk na ci xale yoo xam si ni am na fu ñu yóbbu làmb boo xoolee mbooloo mi topp ci ginnaawam am na fu mu yóbbu làmb làmb nag waxul dëgg alin Seye moo ko jur ci làmb laal ba Alioune Seye di bëre booy bi xalaatul woon ne dina bëre waaye booy bi xool ko fi mu teg indi làmb booy ko xool booy bi xool ko fu mu toll jamono ji fi mu toll amul benn mbër mu mag bu fa toll. ci génération amul ku fa toll